bokk alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi nekk ci sunu téere bi ñu tuddee riyaadu saalihin ñu koy tudde ci nasaraan les jardins des vertus ca mooy toolu gaa yu baax yi mooy niti àdduna bu ñu nekkee seen biir jardin garab yépp naat ñiy witt ci bu nekk di ca bànneexu ab julitit heure bu tiimee téere boo xam ne lañ fay wax mooy qaala allah qaala rasulullah day mel ni ku nekk ci biir jardin looloo tax ñu tudde ko jardin yi gaa yu baax yi tey ñu war a jël benn xadis fanweereelu xadis ci téere bi mu nekk ci baabu sabr la nga xamee ni moom mooy buntu muñ jotoon nañ cee jël aaya ya ca wàcc jëloon ci it lenn ci ay ahadis ba yegg si tey ci xadisu trente ci téere bi muy wa an suhibun an suhaybin an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal xam naa dañuy bàyyee sunu mbokk bi mu jàngal ñu ko gannaaw ba ñu doogoo dugg ci la nga xam ne moo koy leeral bi iznillah
wa maana taqaqa tataxarraku wa tatarib وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر
mbokk mu ne wa an suhaybin anna rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam qaal kaana malikun fi man kaana qablakum nekkoon ne benn buur ca ñi leen jiitu woon avant l'islam di ñëw wa kaana lahu saaxir ñeeloon na ko benn njabar falamma kabira qaala lil malik njabar boobu ba mu demee ba magee mu ne buur bi inni qad kabirtu léegi day man mage na fabas ilayya gulaaman uallimuhu sixr yónneel ci man benn jeune as ngóor ma jàngal ko njabar fa baasa ilayhi gulaaman yuallimu mu yebal ci moom benn waxambaane ngiree mu jàngal ko njabar wa kaane fi tariqihi ida salaka rahib nekkoon na ci yoonam heure buy tàbbi ci yoon ba di dem benn jaamukatu yàlla ca jaamukatu yàllay nasaraan ya nga xam ne dañ daan beru ci àll bi rek di jaamu yàlla fa qaada ilayhi wa samia kalaamahu fa ajaba mu dem toog ci moom déglu kàddoom loolu yéem ko lool wa kaana ida ata saaxira marra bi marra bi raahib fa qaada ilayhi demoon na heure bu daan dikkal njabar ba day romb ka nga xam ne moom mooy jaamukatu yàlla boobu mu toog ci moom fa ida sa ata saahira daraba heure bu ñëwee ci njabar bi njabar bi dóor ko fa shaka zalika ila rahib faqaal mu jàmbat loolu jëm ci raahib bi waa ji na ko ida xashita saaxira fa qul xabasat ni ahli heure boo demee ba ragal ne njabar bi dalay dóor ne ko man kat sama waa kër ñoo ma téye woon ba léegi ñu may doog a bàyyi wa ida xashita ahlaka fa qul xabasani saaxir heure boo demee ba ragal sa njaboot ñu dóor la neel kii di njabarkat ba moo ma fa téye woon mbokk lii benn xadis la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ci jàngal jullit naka la war a muñee doonte ne ni mboole mi jullit ñoo war a ànd ci muñ googu looloo tax commencement bi ñu ngi koy nettali ci benn jeune suñ demee ca fin ba ma ngay nettali benn jigéen bu bot doomam mi wañu ne société l'islam ñépp war a muñ ci jaamu yàlla yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam ne benn buur la woon bu amoon waaju koy njabaral te ko ñun njabar yàgg na ci kaw suuf firawna bokk na nu mu note woon peuple am mooy di leen njabar moo tax njabar yi bi ñu tuubee dugg ci lislaam dañ ne tuub nañu li yaxfira allahu lana xataayaana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr tuub nañu ngiree yàlla baal ñu la nga xam ne yaa ñuy doon forcé ñu koy njabar léegi mën na ko tànnal benn jeune ma jàngal ko njabar googu te it mbokk jeune moo gën a mën a jàng am na lu ñuy tudde âge d'or ci njàng ñay cay xalaat dañ ne mi ngi yem vingt cinq ans xale bi fi muy amee juróom-ñaari at ba am vingt cinq ans cerveau day mën a jàpp day mën a téye lu mu gën a nekk xale it mu gën a marqué ci moom léegi mu dem pour mu jàngal ko waaye ci yoon bi am na benn labbe boo xam ne ni nasaraan yi daan def dañ daan dem ci àll tabax fa benn néeg bu ndaw nekk fay jaamu yàlla islaam na gërëmul loolu lu dul ci jamonoy fitna bu tar nga ragal nit ñi yàq sa diine jeune bi gis labbe bi jàdd ci moom toog waa ji it profitoo ci waar ko ci diine mooy diine bi yàlla gërëmoon di diine yi nasaraan bi nga xamee ne waar na ko ci loolu xale bi wax ji yéem ko lool heure bu jógee tey di jëm ci njabar bi rek fokk mu jaar ci labbe bi déglu ci moom ay kàddu bis njabar bi jàpp ko dóor ko bi mu ko dóoree mu ñëw wax ko labbe bi labbe bi na ko heure bi nga daan yegg soo demee bu la bëggee indil problème ne ko tey kat sama waa kër ñoo ma yeex a bàyyi soo demee sa kër it bu ñu la bëggee indil problème neel njabar bi moom ma fa téye woon loolu it ñu dégg naka ka la labbe bi waxee yonent bi nettaliwaat ko mooy doomu aadama bi même fen boo xam ne dalay teggi lor ca doo ci jël aqu kenn da ngay gis ne islaam bañut loolu wala tax sunu baay ibrahim ñu ne fenn ñetti yoon ci aqu yàlla ñetti yoon ci aqu yàlla ngi noonu ba gaa yi ñëwee ne ko ku dajji gar xërëm yi mu ne xërëm bu mag bi moo ko daj bañ demee jaar ak la nga xamee ni nii seen feet ba lu mu leen waxoon dama feebar pour ñu bàyyi ko fa gannaaw ba ba mu àndee soxnaam sa saara te di traversé Égypte garde yi dajeeg moom ki nga àndal sanaan la mu ne sama sœur la donc loolu la pour teggi ci moom lor waaye fekk doo ca jël àqu kenn fen bu mel noonu da ngay gis ne lislaam bañu ko mi ngi noonu
فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى
mu ne fa baynama huwa ala zalik jamono bi nga xam ne mi ngi nekk ci lii bés bu nekk dana jaar ci làbbe bi dem ca njabarkat ba is ata ala dabatin azima qad xabasati nnaas ci noonu rek la yegsee ci benn bàyyuma bu rëy njaa àll bu rëy baare yoonu nit ñi kenn ñemewu la jàll fa qaala al yawma aclamu saahiru afdal am rahib afdal mu ne tey nag lay xam ndax njabarkat bi moo gën wala labbe bi may dem fa axasa xajaran fa qaal mu jël benn xeer daa di ne allahuma in kaana amru rahib axaba ilayka min amri saahir faqtul haadihi daaba xatta yamdiya nnaas ey yàlla bu dee ne mbiru labbe bi moo gën ci yow moo la gënal ci mbiru njabarkat bi yàlla na nga rey ci sama xeer bi la nga xam ne mooy njaa àll bi ba baa nit ñi mën a jàll fa ramaha fa qatalaha naka mu ko sànni rek mu rey ko wa mada naas ni ñépp continue romb fa ata rahiba fa axbara mu dikkal labbe ba nettali ko li mu def fa qaala lahu rahib labbe bi ne ko ay bunayya antal yowma afdalu minni xamal ne day bis ne tey yow yaa ma gën fuuf qad ballaga min amrika ma ara ndax yégg na ci sa mbir li nga xam ne gis naa ko wa innaka sa tubtala xamal ne nag fokk dañ la nattu fay ni fay ni tulayta ngalawaay bis buñ la nattoo fala tadulla alayya bul tegtale jëme ci man wa kaana alxulaamu yubri'u l akmaha wal abrasa ki nga xam ne mooy xale bi daana faj daana faj koo xam ne daa judduwaale gumba daana faj koo xam ne dafa gaana ba dagg wa yudaawi nnaasa min sa'iri al adwa daana nekk di faj nit ñi ci mboolemi façon feebar bu leen dal fa samia jalisun lil malik kaana qad amiya noonu la déggee benn toogaale buur bi nga xam ne moom daa silmaxa woon fa ataahu bi hadaaya kasira mu indil xale bi ay may yu bari fa qaala ma haahuna laka ajma in anta shafaytani mu ne ko gis nga li nga gis fi yépp ñeel na la bu dee faj nga ma fa qaala inni laa ashfi ahada mu ne ko man duma faj kenn innama yashfi allah taala kay faj mooy yàlla mu kayoo ma fa in amanta billahi taala daawtu allah fa shafaak boo gëmee yàlla danaa ñaan yàlla mu faj la fa amana billah waaje gëm yàlla fa shafaahu allahu taala yàlla muy kayoo ma daal di koy faj mbokku sunu boroom bi mu nammi jubal xale bi fekk xale bi mi ngi sikk sàkka man njabar bi am na lu may jàngal ca njabar yi naka jekk comme niñ koy defee tey dañ daan jàpp ne li ñuy def ci yàlla lu jóge léegi labbe bi am na lu may wax ñaari mbir yu contradiction léegi nag yàlla natt ko ñuy jàll yoon rek benn daaba génn daaba boo xamuñu lu mu doon jaani ñàngoor laam ak segg laam la nadri ala kulli xaal kenn ñemewul jàll xale bi nag ne bis ne ki tey nag li danaa xam lii ma labbe bi woo jëm ak lii ma njabar bi jàngal lan la ci yàlla gën a bëgg daa ji ne yàlla maa ngi sànni daaba bi su dee ne lii labbe bi wax nga gën a gërëm sama xeer bi buy dal ci moom rek na dee su deewul nag ma xam ne la nekk ca njabar ba nga gërëm naka mu ko sànni rek mu dal ci daaba bi daaba bi dee ñépp kontaan ñépp ñemee jàll xale bi nag xam ne kon li labbe bi nekk mooy dëgg mi ngi noonu donte ne ni yow jullit sooy tànnloo sa boroom yonent bi alayhi salaam jox nañu yoon bu gën a mucc ayib yoon bu gën a mucc ayib léeg-léeg nga dégg ñu jëfandikoo xadis bi di wax ay wax dégg naa ci loo xam ne soriwul fii sax ñu naan waaw xutba bii boo gisee ñun ñu koy wax duñ ko changé ba ko sëñ diw bindee daf koo jël na yàlla xutba bi bu dee gërëm nga ko danaa ko sànni ci furna bi bu tàkkee danaa ko bàyyi bu tàkkul nga xam ne gërëm nga ko furna bi béex birix birix mu sànni ci xutba ba benn fay lakku ci moo tax moom la doon xudda moom la ñu xudda ba dajeeg suñu borom mbokk jullit du daliloo loolu ñun li ñu lislaam jàngal heure boo nekkee ci benn mbir di ci sikk sàkk te xam nga jullit moom di sikk sàkk ndax lislaam ak leneen lu ciy dëgg abadan comme li daloon xale bi ndax xale bi daa judd woon ci société mushrik su boobaa yow da ngay julli ñaari rakka nga tànnloo sa borom comme ni ngeen ko xamee ala kulli xaal xale ba daw na jëm ci labbe bi ñëw nag na ko bis nekk tey gëm naa la nettali ko li xew labbi bi na ko ah man day jàpp naa ne yaa ma gën tey fi nga jaar preuve bi nga wone jàpp naa ne tey yaa ma gën comme nag dugg nga ci lislaam sellal ko fokk yàlla nattu la gars yi di lii lañu yàlla wax di ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanoon ndax nit ñi jàpp ne dañ leen di bàyyi ñu ne gëm nañ ci duñu leen nattu heure boo nekkee ci ay caaxaan ay shirk ay kabair nga tuub toroxlu jëm ci yàlla fokk yàlla teg la ay natt nga xam looy réagir loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ah léegi nag daañu la natt waaye nga la waay buñ lay natt bul ma bul ma wax bul wax man bul wax man maa la jàngal mbir mi labbe bi gëmoon na yàlla waaye mënoo ko bul ma feeñal xale bi dem lan la ko yàlla may mooy fu mu daje ko feebar bu ñaane yàlla rek mu wér ci saasi ba daan def la nga xam ne Isa da ko doon def wante ne Isa ibn Maryam yàlla may na ko moom ku mu raay rek lu nekkoon ci feebar deñ amma xale bi moom day ñaan yàlla bu ñaanee rek mu deñ ba daan faj loo xam ne tiim na médecine xam ngeen ku judd wàllu gumba kooku médecin mënu ci moom dara ki gaana bàyyi loo xam dagg kooku médecin mënatul ci moom dara mais moom bu koy ñaanal rek muy wér ci saasi mbir ma di tasaaroo di tasaaroo ba yegg ca pale ba am benn ci notable buur yi dégg na kat ah jeune bi day faj mu ñëw ci moom indi may yu bari ne ko li lépp may naa la ko ngir nga faj ma mu ne ko man duma faj kenn yàlla mooy faj mbaa yow jullit it da nga xam loolu mbokk médecin du faj de médecin day sabablu sabablu bi yàlla tëral ci kaw suuf waaye yàlla mooy faj clinique yi gën a kawe ci kaw suuf am na ay morgue am déet mi ngi noonu kon yàlla rek ay faj yàlla mooy faj man nag damay ñaan rek waaye nag ki may ñaanal mooy ku gëm yàlla soo gëmee yàlla daal danaa ñaan yàlla faj la looloo tax même boo demoon ci ñiy mocc ak ñaan dañ ñaan mbir bi ñaar la mi ngi jóge ci malade bi ak kiy ñaan fokk malade bi gëm yàlla wóolu ko kiy ñaan it sukkandiku ci yàlla su faj ba bëggee mucc ayib waa ji ne ko ah man kay li ma yëg ci yow gëm naa buur bi nga gëm gëm naa yàlla mi nga gëm xale bi ñaan yàlla waa ji ne xefet daal di gis gis ngeen yàlla subhanahu wa taala daal di koy saafara loolu kon mi ngi noonu
fa ata almalika fa jalasa ilayhi kama kaana yajlisu fa qaala lahu almalik man radda alayka basarak قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه
gis nañu ne bokk na ci la nga xamee ne nii buur bi waa waa jay jóge woon ca xale ba def na ko fa atal malik dem na dikkal buur ba fa jalasa ilayhi mu toog ci wetam kama kaana yajlisu comme nam fa daan tooge bu jëkk fa qaala lahu al malik man radda alayka basarak mu ne ko waaw yow ku delloo ci yow sa gis gi qaala rabbi mu ne ko sama boroom qaala walaka rabbun xayri mu ne ko ah am nga beneen boroom bu dul man qaala rabbi wa rabbuka allah mu ne ko sama boroom di sa boroom mooy yàlla fa axazahu fa lam yazal yuazibuhu xatta dalla ala algulaam mu jàpp ko dañul di ko mbugal ba baa mu tegtale ne xale bi mooy ka nga xam ne moo ko faj fa ji abil xulaam ñu dem indi xale ba fa qaala lahu almalik ay bunayya ay sama doom qad balaga min sihrika ma tubri'u al akmaha wal abras ayow nekkate mokkal nga ci njabar loo xam ne mën nga faj ay gumba mën a faj sax ay gaana wa tafalu ma tafal bay def li nga def yépp fa qaala inni laa ashfi ahada mu ne ko man duma saafara kenn innama yashfi allahu taala kay faj mooy yàlla mu kaywe ma fa axazahu fa lam yazal yuazibuhu xatta dalla ala rahib mu jàpp ko dañul di ko mbugal di ko mbugal bam tegtale labbe bi nga xam ne moo ko dugal ci diine ji muy faje fa ji abi rahib ñu daldi indi labbe ba fa qiila lahu irja an diinak buur bi ne ko génnal ci sa diine ji nga gëm ma fa aba mu daldi bañ fa daa bi minshaarin fa wudia al minshaaru fi mafriq rasi ñu daal di dem indi benn si mooy li menuisier di xare bant ñu jël si bi teg ko ci digg boppam bi fa shaqahu xatta waqaa shiqaahu ñu daal di koy jàpp xar ko siye ko ba benn côté dal fee benn côté dal fee teewul mu sax ci diineem summa jia bi jalisil malik fa qiila lahu irji an diinik ñu indi notable buur ba ka doon toog ci moom ñu ne ko génnal sa diine ji fa utiya bi fa wudia al minshaaru fi mafriq rasihi fa shaqahu bihi fa aba ay mu daa di bañ fa wudia al minshaaru fi mafriq rasihi fa shaqahu bihi ñu indi la nga xam ne mooy siba teg ca la nga xam ne mooy digg boppam ba ñu teqale ko ñaar xatta waqaa shiqaahu ba baa muy rot la nga xam ne mooy ñaari wàllam yépp kon mbokk buur bi ki nga xam ne mooy notable bi ñëw na toog ak moom mu gis na mi ngi gis mu ne ko ah waaw di yow ku la faj ba ngay gis ba ngay gis léegi mu ne ko sama boroom na am xale bi waxoon na ko yàlla moo lay faj mu ne ko sama boroom moo ma faj te loolu it la sunu boroom jàngale ibrahim alayhi salaam nee na wa iza maridtu fa huwa yashfin su ma feebaree suma boroom rekk a may faj buur bi ne ko ah am nga beneen buur bu dul man te loolu it muy wone ni firawna ba mu waxee ne ana rabbukumul aala it gannaaw ba am na ay buur yeneen yi fi jaar waxit ñoom it ñoom ñooy buuru gis ngeen ñu ngi noonu comme naka Namruz ba daje woon ak Ibrahima waxoon ah am nga beneen buur bu dul man beneen yàlla bu dul man daa di waa ji ne ko sama boroom di sa boroom mooy yàlla subhanahu wa taala gis ngeen sama boroom di sa boroom mooy yàlla subhanahu wa taala maadaama xeet yi ñu jiitu am na ñu ci jaamu weer bal ba sunu jamonoy tey sax am na ñu jaamu weer yeneen bi alayhi salaam dañoo digaloon heure boo gisee weer bi nga kàbbar ñetti yoon daal di ne yàlla yàlla na nga ko teral ci ñun ci jàmm ju ànd ak ngëm ci dëppoo gu ànd ak lislaam ñu dëppoog la nga bëgg ca gërëm ko waaye nga ne rabbuna wa rabbukallah ay weer bi sunu borom di sa borom mooy yàlla yi nga noonu samunu borom di sa borom mooy yàlla buur bi daal di mer di ko mbugal ba baa foo jële li kan moo la dugal ba ngay gis mu nettali ko histoire bi fi mu jaar mooy xale bi nga xam ne mu nga doon jàngaloo njabar kooku moo jaar fi jaar fi ba moom a ñaanal ñu dem jëli xale bi commencé di ko mbugal di ko mbugal foo jële diine ji nga nekk ba mu wax ne mi ngi maa ngi ko jële ci diw muy labbe ba buur bi nag ni indil leen ma labbe bi comme mooy principal kii indi fitne bi yépp daa di ne ko génnal sa diina ja nga ñëw gëm ma labbe bi ne ko déedéet mu ne gars yi jàpp leen ñu jàpp mu ne dem leen indi si ñu indi si teg ci bopp bi di ko siyee bàyyil sa diine ji mu ne déedéet ñu koy siyee ba xar ko ñaar loole buur bi ne jàppale notable bi ñu jàpp notable bi mu ne ko génnal sa diine ji nga gëmaat sama diine mu ne ko déedéet ñu jël si bi di ko sii ba xar ko ñaar loolu it da ngay gis ne mbokk ab julit su yemee ci ñu koy saboti ci diineem wala di ko ci wax lu kii war nay bàyyi xel loolu comme na ko yonent bi doon waxee alxabaab ba muy ñëw naan ko ñaanal nattu yi tar na yonent bi alayhi salaam ne leen xanaa xamu ne ñi leen jiitu woon am na ñoo xam ne daan nañ leen jàpp di leen siye ba xar leen ñaar ngir ñu bàyyi seen diine te loolu taxul ñu bàyyi diine ji léegi nag ñaari principal yi mooy labbe bi fii indi diine bi rey nañ ko notable buur bi rey nañ ko mu des nag xale bi nga xam ne moom mooy la buur bi tàggatoon pour mu mën a remplacer njabaram bi mi ngi noonu
ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل باصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل باصحابك فقال كفانيهم الله تعالى
kon mu ne summa jia bil gulaam noonu lañ indee xale ba fa qiila lahu irji an diinik ñu ne ko génneel ci sa diine ji fa aba mu daal di bañ fa dafa'ahu ila nafarin min ashaabi mu daal di koy jeñ jëme ko ci benn mbooloo ci ay àndandoom ay buur ba فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا yóbbu leen ko ca montagne tel tel fasadu bihil jabal ngeen yéeg ak moom ci kaw montagne bi fa ida balaxtum zirwatahu su ngeen demee ba yegg ci catu montagne ba fa in rajaa an diinihi su dee dellu na ci diineem baax na ngeen indil ma ko wa illa fatruhuhu su dee lànk na bëmëx leen ko sànni ko fa zahabu bihi fa saadu bihil jabal ñu yóbboo ko yéeg ak moom ca montagne ba fa qaala allahuma akfinihim bi ma chita xale bi ne ay yàlla yàlla nag ma leen fegal ca lala soob fa rajafa bihimul jabal mu daal di yëngatu ànd ak ñoom montagne ba fa saqatu garde yépp daal di rot ci suuf wa jaa yamshi ila al malik xale ba moom daal di wëlbatu ko dox nànk dellu si ca buur ba fa qaala lahu al malik buur bi na ko maa faila bi asxaabik luñ def ña nga xam ne ñoom nga àndaloon fa qaala kafaanihim allahu taala mu ne yàlla day fegal na ma seen ay fa dafaahu ila nafar min asxaabi mu jañ ko jëmale ko ci yeneen mbooloo ci ay àndandoom fa qaala idhabu bihi mu ne yóbbu leen ko fahmiluuhu fi qurquur ngeen dugal ko ci benn gaal fa tawassatu bihi albahr ngeen yóbbu ko ba digg géej fa in rajaa an diinihi su delloo ci diineem xayrun wa ila faqzifuuhu bu dul looloo sànni leen ko ci biir géej gi fa zahabu bihi ñu daal di koy yóbbu fa qaala allahuma akfinihim bi ma shi'ta mu ne ay yàlla yàlla nag ma leen fegal ci li la soob fan kafaatil bihim safina mu daal di dëpp ca ñoom gaal ga fa xariqu ñoom ñépp ñu lab wa jaa yamshi ila al malik mu daal di ñëw commencé dox jëm ci buur bi fa qaala lahu al malik buur bi na ko waaw maa fu'ila bi asxaabik luñ def sa àndandooya fa qaala kafaanihim allahu taala mu ne yàlla day fegal na ma leen mi ngi noonu mbokk istuwaaru xale bi siiw na ñépp yëg nañ ko boor bi defoon na ci moom yaakaaram ñaka ci dugaloon rey na leen mais xale bi moom bëgg na ko récupérer te xam ne it rey gam ko rey mën na indi fitna léegi nag mu ne jox ko ay garde na leen yóbbu leen ko ci montagne tel ngeen yéegal ko ba ci montagne bi menacé ko ne ko su bàyyiwul diineem da ngeen koy daaneel su ngeen demee ba ci kaw su nangoo génn ci diineem ngeen delloosi ko su nanguwul ngeen bëmax ko te loolu it ku ne xam ne ne xale bu nar a dem ci montagne ak montagne nam mën a kawee boo demee am na yoo xam ne ay kilomètres lay def ay limala yàgg yu kenn xamul mën na def sax ay dix kilomètres et quelques léegi bu bañee ba wax leen ko gaa yi yóbbu ko ba ca catu montagne ba ñu ne ko ah léegi nag lii la ñu buur waxoon gëmal gëm ko génn sa diini bu dul loolu dañ lay bëmax xale bi ne yàlla yàlla na nga ma fegal seen ay ci lu mu la neexee montagne bi ne gërëng gërëng ñoom ñépp ñu rot daanu tasaaroo dee gis ngeen dañ cay jëkk a jàngee mbokk mooy élément yi ñu wër yépp sunu borom la ñuy déggal ca dañoo am yéeg-yéeg moo tax suñu borom ne montagne yi am na yu ci toog ragal yàlla ga nekk ci ñoom ñu mabb fekk ragal yàlla moo leen mabb xale bi wàcc bi mu wàccee jubal direct ca pale ba xëy na mënoon na daw waaye dafa nekk ci yoonu da'wa yoonu woote mu dellu ca pale ba ñëw buur bi na ko waaw ana garde yi ma la boole loon la yàlla day fegal na ma seen ay bii paa mu ne léegi jël yeneen garde na leen dugal leen ko ci gaal ngeen dem ba digg géej su ngeen demee su nangoo dellu gannaaw xayru su dellul na ngeen fexe ba ngeen labal ko ci géej gi foofu bi gaa yi demee ba foofu ñu wax ko li boor bi wax mu ne yàlla yàlla nag ma leen fegal seen ay gaal gi na wël bépp ña ci nekkoon ci garde yépp daal di daanu ci géej gi lab xale bi langaa mu wëlbatikuwaat mu daal di joow gaalam jëbalaat direct ñëw ci pale buur bi buur bi ne ko ana ñu nga àndaloon mu ne ah ñooñ de yàlla fegal na ma seen ay gaa yi kon léegi jaaxle gu rëy dikk dikk dikk na ci buur bi mi ngi noonu
fa qaala lilmalik innaka lasta bi qaatili xatta tafcala ma aamuruka bih qaala ma hu قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها
kon bi nga xamee ne nii xale bi ñëw na fa qaala lil malik daf ne buur bi innaka lasta bi qaatili yow nekkoo mukk ku may mën a rey xatta tafala ma amuruka bihi lu dul nga def li nga xam ne maa la koy digal qaala wa ma huwa mu ne ko lool lu mu doon qaala tajma'u nnaasa fi sa'idin waahid mu ne ko da ngay dajale waa dëkk bi yépp ci benn place wa taslubu nii ala jiza nga daal di may jàpp yeewu ma ci benn datt tàndarma summa xud sahman min kinaanati gannaaw ba nga jël benn flèche ca fa nga xam ni fa lay denc samay flèche muy mbuus boobu nga xam ne ci la ñuy denc flèche yi summa da sahma fii kabidil xaws gannaaw ba nga jël benn flèche teg ko ci la nga xam ne mooy diggu sama bant bi nga xam ne ca la ñuy takk buumba ba flèche ba mën a dem summa qul gannaaw ba nga wax bismillahi rabbil gulaam gannaaw ba nga ne maa ngi sukkandikoo ci turu yàlla mii buuru xale bi summa irmini gannaaw ba nga sànni ma fa innaka iza faalta zalika qataltani loolu moom boo ko defee danga ma rey fa jamaa annaas fi sahidi saidin waahid noonu la buur ba dajale nit ña ci benn place wa sallabahu ala jiz mu daal di koy yeew sallabahu ala jiz yeew ko ci benn dat thumma axasa sahman min kinaanatihi gannaaw bu mu jël benn flèche ci la nga xam ne fa lay def flèche am ya thumma wada a sahma fi kabidil qaws gannaaw bu mu teg ko ca la nga xamee ni mooy dégg flèche am ba mooy fa buum nga fañ koy takk ca yet ba summa qaala bismillahi rabbil gulaam gannaaw bu mu ne bismillah booru xale bi summa ramaahu fa waqaa sahmu fi sidqi mu sànni ko flèche ba dal ca la nga xamee ne nii mooy nekk mooy ker noppam boo jógee ci nopp bi yéeg jëm ci jëbi mooy sidqu foofu la ko teg fa wada yadahu fi sudxihi fa maat mu daal di jël loxoom teg ko ca kaw boppam ba rek daal di faatu fa qaala nas nit ñépp daal di ne amanna bi rabbil gulaam ñun gëm nañ buuru xale bi fa utiya al maliku fa qiila la ñu dikkal buur ba ñu ne ko ah ay buur araayta ma kunta tahzar gis nga la nga nekkoon di ko moytu qad wallahi nazala bika ma hazarak dal na ci yow la nga xamee ne nii nekkoon nga di ko moytu qad amana nas nit ñépp gëm nañu fa amara bil uxdud noonu la santaane ay xar-xar yu ñuy xar ci biir suuf bi afwaahi sikak ci ay buntu ay teen yu ndaw yoo xam ne nii da ko gas relier ko nag ak benn susu tiwo ci ci suuf fa xuddat ñu daal di koy gas fa udrima fihi niiraan gannaaw ba nag daal di cay taal sawara wa qaala man lam yarji an diinihi faqihimuuhu mu ne képp koo xamee ne delluwul ci diineem ngallaawaay na ngeen ko jël ngeen sànni ko ci biir sawara soose mbokk xale bi ci ñaari yoon buur bi essayé na ko rey ko ci montagne sottiwul ci géej sottiwul xale bi ñëw na ko buur da ngay sonn soo ma bëggee rey benn pexe rek nga am sama flèche ngay jël ni ngi noonu teg ko ci sama arc muy bant bi nga ne bismillah rabbul gulaam maa ngi sukkandu ko ci yàlla borom xale bi doonte ne loolu bala nga koo def da ngay dajale waa dëkk bi yépp ñu seetaan man nga yeew ma ci kaw bant ñépp di ma gis nga wax loolu soo ma sànnee dag ma rey buur bi ne il faut mu essayer loolu dajale waa dëkk bi ñu ñëw mu yeew ko jël flèche bi ne bismillah rabbul ghulam sànni rek mu dal ca la nga xam ne mooy kaw nappam ba xale bi teg ci loxoom sedd daal di dee loolee mbokk lañ cay jëkk a dégge mooy xale bi sacrifié na boppam ngir l'islam jëm kaw waa dëkk bi gëm ko loolu nag ñu bari ci ndaw ñi dañ ciy jàpp ne mën nañu dem rey seen bopp ci li ngay dégg Israël Pakistan partout partout benn jeune takk ay bomb dem rek dugg ci ay touriste wala dugg ci ay yéeféer mbokk loolu borom xam-xam yi gërëmuñ ko loo tax amul benn njëriñ amul benn njëriñ foo dégg attentat yooyu la ci lislaam di ñàkk moo gën a bari lam cay am am déet jeune bi dem Israël doo bomb bu reyee dix juifs Israël dañu def représailles rey mille palestiniens am déet kon ban njëriñ la am yow jeune nga ñàkk sa bakkan amma xale bi moom lii enjeu bi taxoon mu joxe boppam moo di ne l'islam moo nar a yëkkati ko ci dee gim nar a dee ndax buur bi mi ngi ne ci turu yàllay xale bi lay sànnee yàlla nar ko rey or que moom def ne pexem yépp mënu ko rey loolu it comme ñu bàyyi ci xel ne xale jullit du sacrifier boppam abadan loolu du am ludul jihad fi sabilillah ñu am amirul mu'minin di jihad fi sabilillah ñu dem ba gis ne circonstance am na boo xam ne fokk am ñu def sacrifice pour ñu not noonu yi boobaa rek la jullit di am droit def sacrifice amaa toggum neex rek nga teg say bomb dem taal sa bopp loolee nga la way bu ci benn jeune dugg mi ngi noonu waaw kabaab waaw mu ne kon ci kabaab gi waaw waaw waaw waaw waaw tungaar waaw waaw nee na nee na tungaar am lu ñuy wax loolu tungaar mooy fi ñu def fett yi ala kulli xaal la bi loolu amee waa dëkk bi yépp daañu ne ah ñun gëm nañ yàllay xale bi gëm nañ yàllay xale bi ah buur bi moom rey na xale bi dellu na ca pale ba gars yi ñëw ne na ko buur musiba am na mu noog lu xew mu ne dëkk bi yépp léegi gëm nañ li xale bi gëm gëm nañ diine lislaam weddi nañ la mu ne ha ñu ne waaw mu ne nañ ko gasal ay uxdóot loole soo demoon ci sunu maam yi togg ci àll bi gàmmo yi dañ daan gas benn xunti bu ndaw bu bu bu gudd ca la ñuy teg ci nii nga xam ne boo taalee fi rek day dem ba but ba léegi nag mu gas ay teen yoo xam ne nii ñoo nekk ci biir xunti boobu yépp taal ko dajale nag waa dëkk bi ne leen garde yi kaay leen képp ku ngeen indi na ko dellu si lu bañ rek ba max leen mu dugg ci biir mi nga noonu nga xam ne bu xisee bu dugg ci pax bi rek uxdud bi moom mi ngi tàkk takkin boo xam ne dafay daal di dee ca du am pexe bu mu ci génne dajale waa dëkk bi yépp ñu ñëw mu jox leen ordre boobu mi ngi noonu
أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق رواه مسلم ذروة الجبل أعلاه والقرقور نوع من السفن والصعيد الأرض البارزة والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت وتقاعست توقفت وجبنت
kon mu ne aw qiila lahu iqtahim wala boog waa ji ci boppam lañ naan ko tabbilal sa bopp ci biir sawara bi fa faalu noonu la ko garde yee defee xatta jaat imraatun wa maaha sabiyun laha ba baa mu yëg si benn jigéen bu ànd ak benn xale boo xam ne doomam la fa taqaasat an taqaa fiiha mu daal di taxaw hésité ci bañ a tabbi ci biir sawara wi fa qaala laha alxulaam xale bi ne ko yaa umma isbiri muñal fa innaki ala alxaq yow day yaa ngi ci dëgg loolee mu ne muslim soloo na ko ala kulli xaal mbokk kon buur bi defar na pexe bu rëy boobu mu defar sawara baa ngi birbiri ñu indi waa dëkk bi kuñ ne tuub na dugg ci lislaam rek mu ne ba mëx leen ci biir bal am na riyaay bi wax sax dañ naan dañ koy indi na ko dugalal sa bopp ci biir comme ne nga gëm nga lislaam dugalal sa bopp ci biir nit ñi ku ñëw rek sànnee ko ci biir ndax deeyaale lislaam moo ko gënal dellu ci kéefër te loolu it la julit war a gëm soo demee ba da ngay gis ne dañ laa taxawalal ne la kéefér wala lislaam su boobaa dee da lay gënal loolu ngay dund ci kéefér dee da la koy gënal moo tax sunu boroom dañu ko nettali feneen xoolal asaabul uxdud annaaru zaat al waqud is hum alayha qu'ud wa ma naqamu minhum illa an amunu billahi al aziz al hamid jël nañ gas ay ngaarew rey ca jaami yàlla yi ca amul benn fët buñ def lu dul ne dañoo gëm yàlla mi seen boroom loolee kon gis nañu ne am na ñu rey waa dëkk bi yépp ba benn jigéen ñëw ànd ak benn gone gu ndaw bi mu ñëwee gis sawara bi ak xale bi mu àndal loolee mu am hésité lool nan lay dugge ci biir lii mais xale bi mu ne ko ay sama yaay muñal yaa ngi ci dëgg demal nga dugg ci biir xale bi dem ànd yaay ji dem tabbi ca biir sawara ba sunu borom subhanahu wa taala seetaan loolu donte ne ne yàllaa ngi ñuy wax ci même saar ba suratul buruj inna lazina amanu wa amilu salihat falahum jannat tun tajri min tahtiha al anhar mooy loolu day nekk ci ñoom yoonu tabbi aljanna mbokk lii nekk amay yim ci teg yépp ay yenn kalimaat la doon firi yoo xam ne wax nañ ko ci biir lii mu ñuy jàngal aussi ne ci wàllu muñ jullit des fois nga toll ci benn xaal boo xamee ni nii yéeféer yi ngay dëkkal pexe buñ man pour génne la ko ci seen diine dañ ko def waaye ngalawaay muñul deeyaale lislaam na la gënal ngay dund ca la nga xamee ni nii ak kéeféer la mi ngi noonu nañu xam ne loolu mooy yoon ba gën a mat yoon ba gën a sell ba gën a rafet boo xam ne jullit dana ca mën a deeyaale ca it incha allah dañuy gëm ni képp koo xam ne dañ koo rey ca diineem kese tax ñu rey ko kooku buy dee di tabbi aljanna buy dee di tabbi aljanna mbokk kon loolu mooy xadis bi nga xam ne di xadis bu gudd di xadisul xulaam boo xam ne jullit bu nekk war na ci bàyyi xel di ci natt boppam ñu ngi doon gis ne benn xadis la ñu ngi doon rafetlu ñu yem ci ngiree bu ñu demee ñi mbébét ci ñaan yàlla en tant que yow mi nga xam ne yaay jeune sa jeunesse bu mu tax nga jël sa diini àdduna gënal la sa diini abadan waaye yow mi nga xam ne yaay magit affection boo mën a am sa njaboot bu mu tax ba loolee gënal la sa diini loolu tax yonent bi alei salaam ni mu ko tegtalee xadis bi mu ne kii xulaam la fin ba mu jox ñu ci histoire la nga xamee ne nii mooy ndaw soose ñuy wane it ne muñ mbugal ngir diine bi ñu lay mbugale heure bu mbugal ya taree ci yow donte ne jullit def war a ñaan yàlla afiya war nay bàyyi xel ñii yeneen bi alei salaam nettali ñoo xam ne ay tuubeen lañu lañ leen mën a tuddee donte ne Sénégal loo wax ñu ne ñun ay tuubeen lañu jàpp ne loolu excuse la déedéet mbokk ñii ay tuubeen lañu ba jóge ci lislaam yàggul waaye teewul muñ nañ seen diine ba diina jaral leen ñu jël si teg xar leen ñaar ca loolu taxul ñu génne seen diine lii kon képp ku ci xalaat da nga war a mën a muñ ca yàlla tax yal na yàlla wërsëgal ñu muñ ca yàlla tax waaye yal nañu yàlla fegal dañuy teg benn natt bu ñu attanul mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad